barakaatu maa ngi nuyu mboolem mbokk yi fi teew yëpp ci turu Cheikh Abou Mouhamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun xafisahullahu taala wa raa ñu koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi suñu kanam yàggal ko fi te ko bu baax nga liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëriñ bi di ko liggéeyal ci Daaru Salaam muy yóbbu ko foo xam dana kaw suñu jot ñun ñu ànd koog moom ñu ngi jagleel am nuyoo it kilifa yi fi teew di suñu kilifa yi diine yi ak kilifa yi àdduna yi di leen wàcc seen wàccuwaay yi nga xam ne seen sunu borom jox na leen ko ñu ngi nuyu mboolem bokki taaliba yi ak mboolem bokki jullit yi ñi fi teew ak fu ñu mën a nekk di leen siyaare ci bis bi di leen ci ndokkeel di leen ci balaq di jottali kàddu yi sëriñ bi rek yoo xam ne waxoon nañu njort la ko buñu téwé ci jotaay bi te moy soñu suñu bop soñu len ci ragal yalla ak jaamu yalla ñaari ndenkan la yo xam ne fu mu toll ñu koy dégg suñu nopp bari na lool waaye nañu xam jamono du ko wessu mukk ndax dañoo mënta taggo mom jann jamono moo yor suñu mucc moo yor suñu tex ëllëg kon sëriñ baa ngi koy soññee bu baax a baax ñaari ndénkaan la yoo xam ne lu ñor suñu borom la ndax la ko dale ca yonent yam ba ya, mu njëkk a yónni ba ci bi mu mujj yónni ku ci dëkk ñaari dénkaan yooyu lay jiital ci lam lay jot loo mbooloo ma nga jëm si kon suñ ñu ya, neen nañ ko teg suñu kanam fu ñu toll ci lépp lu ñuy jëf wala ñu di ca wax ñu di ci seddu suñu borom bu loolu jàlleet ñu war a xam ne nit ku ne war naa xam ne ba ko suñ borom di sàkk di ko indi ci àdduna indi ko fi ngir mu dund moom dong moom ci nit yàlla da ko génne ci biir ak njaboot njaboot gu ne yàlla da ko génne ci biir aw askan askan woo gis yàlla da ko génne ci biir aw xeet noonu la noonu la ñuy lëkkaloo di dem kenn ku ne nag am na lu la war sa morom ngir li ñu yàlla indee ci àdduna ci ñu jaamu ko ak dundal ko suuf si ñu mën koo def moo tax jullit bu ne war na war na di luy defar mbirum ki mu bokkal askan wi ko yàlla booleel kenn na mu yittewoo ne mi defar mbirum boppam hmm. ndax kat nañu wax ne fexe ba sa mbirum bopp rekk jàkk loolu ak njàmbaar nekku ca te it du ndamul du ndamul kenn mhm. kon ku nekk war ngaa def sa bëgg-bëgg ak sa yitte li nga xam ne mooy njariñul mbooloo ma nga bokk kenn na nga koy sàkkale sa bopp njariñ loo xam ne ñëpp ko sàq dal ku ne na nga ko jiital sa kanam teg ko sa kanam te di ca dox di ca wax suñ mu ne nañuy wattandiku lépp loo xam ne day taqale wala muy féewale mbolo wala aw nit kem ni ko suñu borom santaane ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu lolou bu ko ñëpp defee yaakaar naa ñun ñëpp dañu bokk jariñu nek dund ci aduna dund ak jamm ak salam ak tawfiq ndax boko defé lay sa morom sa morom defal lako ko ñun ñëpp ñoo koy bokk am kon lolou sëriñ baa koy bu baax kon sëriñ bi neena na sax ñun ñepp ci di dimbalente tey yërëmante tey jëflente it jëflente bu rafet rafet te lépp loo xam ne ñaar seq nañ ko wala ay mbooloo seq ko luñ war a lijjanti nañ koy lijjantee ci ak dal ak ci masla ak ci njëkk ak teraanga hmm. waaye nee nañ xëttit xëttit ak xuloo ak xeex sottalu dara wala fi dañoo wax ne lépp loo xam ne mar mayu la ko mat du lo ko mëna may hmm. ñen lool nañ ko bàyyi xel bu baax dañu xam ne ay woote bu amé ci ay gis-gis ci mo xam ci diiné la mo xam ci mbirum àdduna wala xëccoo ay ndariñ àdduna wartu tax kenn mëna daas aw làmmiñam di ko jëmale ci mbokam wala di ci wax kàddu yoo xam ne day yaq way du defar dara lool ne ñu ci yalla musul ñepp نبارك الله فيك وخي سيرن توبا دي مخني قلوبنا على التوادد بلا تنازه ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين الصالحين يعني يلا تبل كبير بير لول سيرن مي لاي تانت بو باخا di ko jëmale ci ki nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp di cheikh al muntaha an yadahu allah wa nasra sant na ko bu wér a wér di ko sant ci turu dar salaam gépp ndax am na taxawaay bu rafet rafet ci dar salaam ci yëg ko ak jàpp ko ak cëral ko cër boo xam ne sedd na xol waa dar salaam gépp seytaan ñu ci lenn ñu ngi koy ñaanal nag sëriñ tubaa taxaw bu baax a baax ba liggéey yu rëy yi nga xam ne sumbal na ko Serigne Touba mu àgg ci foo xam ne daana kay wañ jot yëpp Serigne baa ngi koy seeral loolu mépp di ko wax ci seen tur nee na it mi ngi sant kilifa yi nga xam ne ñoom la seqal Daaru Salaam ànd nañ ak mu ànd rafet rafet jàppale nañ ko ci liggéey bi nga xam ne suñ borom dénk na ko ci dëkk bi ak ci yoon wi gis ci seen taxawaay yéen ñëpp ñu ngi leen ñaanal suñu borom boo leen taxaw nee ni ñu ngi sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne bokkoo nañ bokkoo nañ Daaru Salaam ba lépp lu fi xew ñu bàyyi seeni yitte ñu ànd ko ñun bu baax te loolu mbir màggal gi ñu wees rek moo ci mujj nee leen mi ngi sant bokki taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar Daaru Salaam ak wëllëre Daaru Salaam ñooñu moom Sëriñ Tuubaa rek lañ leen di booleel ndax kenn amul seenu pay seen taxawaay mën na sëkk sëkk yeesut fenn seen yéene man na seen taxawaay rafet na seen i jëf mën na waaye nag nañ xam ne sëñ Tuubaa la ñuy lebal te sëñ Tuubaa kum fay soxal dana sedd kon yàlla na leen sëñ Tuubaa fay lu yéem nag seen mbir te ak seen mbir ëllëg nee na yéen mi ngi sant lu bu baax mbooloo mi nga xam ne ñoo doon taxaw mbirum màggal gi te féete ci biir dëkk bi nee na rafetlu na liggéey bi def nañ ko nam gën a selle gën a rafete ba yaakaar naa ne ñëpp gis nañ seen bopp kon ñu ngi leen di gën a soññ bu baax dañ xam ne loolu rek mooy yoon wa loolu ñoom ñoom ñoom la ko yàlla féetal te man nañ ko te nangu nañ ko te ñëpp nangul nañ leen ko it kon nañ ko gën a téye te gën koo fonk bu baax mu ngi leen di ñaan it noonu ñu taxawoo mbirum sëñ ba mu jag ñaan na suñ borom taxaw seeni mbir ba mu jag defal ñu ko ñun ñëpp ci barkeb sëñ Tuubaa assalaamu aleykum wa rahmatullahi